salaamaaleykum mbokk yeeg xaritu internet yu 313 digital gannaaw ba ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ñoo ngi fii ci Médina marché leen pour jàkkaarloog askanu Sénégal laaj leen lan moo ci seen xalaat ci li nga xamee ni moom mooy loi d'amnistie bi ñu war a suba assemblée nationale incha allah li ñu def mooy dugg ci biir marché bi gisanteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy waa marché bi ñu waxal ñu ñu xamal ñu exactement li nga xam ne moom mooy seen position ci bile loi. loi boobu moom man nanguwuma ko moom man en personne nanguwuma ko parce que li tax nanguwuma ko maanaam bu fekkente ne bi yow dafa am say mbokk yoo xamante ne bi dañ see ñàkk seen bakkan tamit ñu bëgg a naax saay li nga xamante ne bi mooy lool moo tax loolu du ma si d'accord man sama wàllu bopp man moom ànduma ci moom waaw loolu daal moom rafetluwuma ko rafetluwuma ko daal waaw. tey loi si bi itam am na ci ñu bari ñoo xamante ne dañu ne loi bi dañ ko bëgg a pour euh, aar seen bopp. Euh, est-ce que loolu itam nekk na mbir moo xam ne tax na askan wi bëgg a bañ loi bi. non loi moom li ma si wax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a voté te ñun ñoo leen fi teg ñun ñi nga xam ne ñooy askan wi ànduñu si waaw bu ñu sañoon daal ñoom duñ ko voté man moom ànduma ci loolu moom. waaw man personnellement d'accorduma ci loi d'amnistie parce que dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañ fi am ay jafe-jafe moo xam ci seen wàllu liggéey moo xam ñii dañ leen a jàpp ñii ñu ray leen xam nga. ci yoo xam ne maanaam kenn comprendre daal dëkk bi ñun suñu liggéey même donte rayu ñunu jàpp ñunu mais dañu ja am gàllankoor kon ñi waral cause boobu noonu ñun war nañoo dem ba xam ñan ñoo waral cause boobu noonu ba indi dëkk bi indil ko problème yoo xam ne ñun mënuñoo xam yan problème la ci dëkk bi waaw parce que dafa am ay yoo xam ne sonn fi trop maanaam moo xam ñu jàpp leen ñu ray leen kenn ku nekk ci yéen maanaam kenn ku nekk si ñun bu ko nattoon sa bopp rek ñu rey sa frère wala ñu jàpp sa frère mu def un an et mu perte ay ay bagage am lu bari perte xaalisam perte léppam kooku doo bëgg ñu am ni siiw même bu doon nekk keneen lay noonu lay gisee waaw ñun nag bon dëkk bi moom xam nga li fi nekk kenn mënu ko wax parce que dëkk moom bu demee ba nga xam ne bu naan benn kàddu la ñuy xaar muy conseil constitutionnel moom mooy dernier mooy joxe dernier kàddu gi mu joxe dernier kàddoom ba pare ñu changé waat kàddu gi kon ñun xamuñu fan lañ jëm waaw léegi dëkk bi gis nga ni mu méttee maanaam kenn ku nekk tey ñun ay borom kër la ay responsable te xam ay xale la dañuy joxe dépense chaque jour dañuy jóge village ñëw dakaar liggéey boo liggéeyee da ngay fay fi location war di dépense sa bopp di yóbbante dépense léegi yooyu yëpp da ngay dem ba après dootoo ko mënatee amati. moo waral boo gisee nit ñi toog ba ci yàgg ñuy dem ba di dugg si gaal yi di di dugg si di dem ay microgras da ngay gis koo xam ne sax day jël alalu jàmbur sax bëgg a dem microgras parce que Sénégal day dem ba duutoo fi xajat da ngay dem ba parce que gor gor rek la nit boo xam da ngay liggéey maanaam nga dem leer na ne yow mii li ngay liggéey gisatoo ci sa bopp da ngay sàkk yoon woo nga xam ne da nga fa mën a jaar am na ñoo xam ne tey jii am nañ problème mu banque am na ñoo xam ne seen wàllu liggéey am nañ ti problème parce que nit doon nañ liggéey te pourtant sax xëy na ñoom jubadiwul waaye dëkk bi ni muy doxee moo waral mu demee noonu parce que da ngay gis ndaw loo xam ne xam nga dëkk boo xam ne nga ñëw fekk fa ay ndaw yoo xam ne ay vingt cinq ans la ñu am ñoom nga xëy leen fekk leen ñu toog kenn liggéey loolu loolu beneen affaire la dëkk bi moom boo bëggee dégg-dégg mooy peuple bi sonn nañ sonn gi nag maanaam jooy nañ ko ba fan jooy mën a yem mënatuñ si dara mais wax dëgg yàlla li ñu bëgg mooy ñu dem élection ki war a toog toog xam nga maanaam ñun loolu lañ bëgg Macky jiwu ñu ko jiwuñu ko li mu li mu nuy indil jiwu ñu ko parce que moom bi mu bëggee toog dañ ko fal mu ñëw toog élection dafa am mu ñëw toog kon li mu bëgg moom mooy élection comme yàlla dogal na instant bii élection rek moo nu mën a tàggale nan def élection bu nitam gañee mu xam ne nitam gañe na bu keneen gañee mu xam ne keneen gañe na Sénégal mais Sénégal boo ko bëggee téye ci dynamique bi nii bii ñu nekk nii billaahi du dem ak ku man di doon bu ko neexee nu ko neex na def mais dynamique bii mu ko téye moom du mas a dem maanaam ñun tellement que dañoo am lu ñu naqari ci dëkk bi dañoo am lu ñu naqari trop parce que mënuñoo wax daanaka lépp parce que ci wàllu ci sunu wàllu liggéey am nañ ci ay gàllankoor boo gisee ñun bañ neeku ba fi ñu toll nii xam nga tey suñu secteur bi rek état waroon na ko euh, développer te développé ko léegi dañuy gën a suuxal parce que benn su fekkente ne say réew dafa am loo xam ne métier boo xam ne ñi koy def waxuma la ci région yeneen yi mais Médina rek li ko fi nekk mën nañ 3000 personnes waroon état waroon na ko mën a protéger mais protéger wuñu dañu seetaan ak chinois yi ñu nuy concurrencer xam nga te chinois li mën a produire ñun mënuñu ko produire parce que amuñu moomu koom ba mën a produir loolu léegi nag dafay dem ba daf ñuy gàllankoor ba ci matériel yi nga xam ne sax daan jógee Italie ak yooyu doxatul parce que matériel yi jógee si koo yàq xam nga léegi suñu wàll liggéey boo xoolee bu fekkee ne état bu normal la boo ñëwee xanaa boo demoon Maroc tey jii état bi dafa protéger seen i cordonniers cordonniers yi dañuy liggéey état bi protéger leen yow boo demoon Maroc mënoo faa liggéey sam fa entreprise bopp fii ngay gis benn juge jóge Maroc ñëw toog Sénégal sam am entreprise boppam boo xam ne ci kër lay toog di liggéey ay dàllam di ko génne di ko dugal ci marché yi te pourtant loolu yow yow en tant que sénégalais mënoo dem Maroc nga def ko fa kooku ñan ñoo leen protéger seen état moo leen protéger ñun nag li ñu bëgg mooy état bi nga xam ne ñun moo moo nu fi nekkal nga xam ne ñun ci ñun ci suñuy ci suñuy impôt yooyu lañ koy fayee moom munuy jàppale ci suñu dundin parce que état loolu rek lañ ko soxlaa mu ne jàppale suñu wàllu dundin dëkk bi fexe ba am yoon bàyyi kumba am nday bi ak kumba amul nday bi parce que nit bu fekkente ne da ngaa bokk ci état lu la neex waxal mais bu fekkee ne bokkoo ci état maanaam yow da ngay ragal sax da ngay dem ba da ngay ragal parce que boo waxee sax da naan la bul wax de parce que nangam nangam am na ñoo xam boo leen tàllee micro duñ wax parce que dañuy ragal parce que lan la li ñuy ragal mooy lenn maanaam bëgguñu maanaam wax ba pare dem ci kaso wala dara. te pourtant da ngay wax wax yu ndaw rek maanaam nit àdduna ñun ñoo fi nekk nit pourtant ñun ñu nekk nii rek parfois da ngay wax ak nit ci kaw wax ji ngay wax dangay defay def ay erreur mais erreur yooyu sax état du la ko baal loolu loolu loolu fan la tegee ñun ban réew la nekk maanaam réew mi daal ba bëggee dégg-dégg li fi nekk daal metti na metti na metti na wax dëgg yàlla kenn mënul takk mettiwaay bi parce que ñun ñi di wax a yow corona bi laal nañu ñu ñëwaat après Adji Sarr xam nga boobu ba léegi nag dëkk bi stable nit ñi nga xam dañoo waroon a jugee yeneen réew yi extérieur pour ñëw ci Sénégal dañuy ragal parce que naan chaque jour Sénégal mi ngi waaj am problème xam nga dañoo am problème élection dañoo am problème tey tellement que boo gisee gis nga tubaab yi pour ñu pour sax ñoom ñu mën leen a jàmmal faw ñu fexe suñu réew yi stable nga xam ne ñun suñu doom yi dañ fiy toog di liggéey di mën a gis seen bopp ci réew bi waaye bu fekkee ne réew da nga faa juddoo yaroo fa nga dem ba ci yàgg maanaam mënoo faa am dara da ngay obligé nga dem gis nga tubaab yi sonal gi leen sonal day gën a yokk waaye du gën a wàññeeku loolu moom bay boo ñoom ñu xam ko tant que ñun nekkuñu jàmm ñoom du nekk jàmm parce que dañuy dugg ak yeneen voies yoo xam ne xëy na du leen gënal waaw. bon Ndiogou fi ñuy daanelee mooy euh, tey euh, président ñëpp di ko jooy dalu datu élection mu jël datu élection tegee ko ne sëgg ci li nga xam ne moom mooy loi d'amnistie sa xalaat bu gàtt tey lan moo waral mu gën a farataal loi d'amnistie que datu élection bi ko askan bi di laaj. waaw loi d'amnistie de parce que ñëpp xam nañ ni mu demee. parce que tey bu fekkente ne xeex dafa am sa dëkk am ñoo xam ne dañ cee faatu am ñoo xam ne dañ leen a jàpp prison ba léegi ñoo génn am nit ñoo xam ne dañoo gaañoo ci prison am nit ñoo xam ne dañ leen dóor damm leen gaañ leen ñoo ñu noonu taxaw war a défendre seen i ak seen i yelleef tey jii nga ne leen loolu noonu lépp dafay naax saay dafay doon loi de amnistie boo xam dafay naax saayal loolu tey est-ce que bu naax saayal loolu kooku noonu ëllëg ki ñàkkoon frère am wala ki ñàkkoon papam wala kii ñàkkoon yaayam est que loolu du ko indil benn ranking ci population bi tax population muy doxee noo xam ne parce que nit parfois mu soxor nit a koy tax a soxor maanaam du question ne que maanaam nit day juddu rek soxor soxor boo ko dee def day am fu muy fu ko yàlla di jaarale ci doomu aadama la ko yàlla di jaarale soo leen defee lu métti rek dañuy mujj seen xol mooy mujj laaj léegi nag bu sa xol di laaj la ngay def doo ko tay maanaam loi de amnistie maanaam du loi boo xam ne war contesté bi fi mu toll nii war nañ ko def ñun li ñu li ñu laaj président mooy leen dañ ko ne nañu organiser ay élection ñu dem élection ku war a gañe gañe ki war a toog toog maanaam moo xam moom mu gañe wala nit nitam gañe wala keneen gañe ku war a gañe rek na gañe mujj jeex mu dem Sénégal nekk si jàmm parce que 13 millions d' habitants mënoo jël benn nit nga ne nit boobu moo fi gën wala 10 personnes yi ñoo ci gën loolu mënul nekk da bàyyi peuple bi ñoom ñu soisir ki ñu bëgg moom mu demal leen élection mu dem si jàmm ñu def élection ñu fal ko ci jàmm réew mi kon newaat dox stable ñun Sénégal loolu ñu ci bëgg loolu lañ soxla waaye soxla woon ci moment bi nii soxla woon ci ay loi de amnistie parce que am na nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla am buñ amnistie dana am lu leen met te ëllëg buñ xam lan lay jur maanaam réew daal buñ koy yore dañ ko war a teg ci yoon parce que yoon mooy tax dëkk normal tubaab yi leen dong lan nu rawe rawewuñ ni leen lu may seeni loi dañoo fexe ba protéger ko ba nga xamee kenn du ko mën a jalgati loolu dong lan nu rawe mais ñun nag suñu dëkk yi leen mooy problème bi da ngay ku mu am ndey ku mu amul ndey mu am ci justice bi justice bi da ngay gis ni mu doxee maanaam baaxatul léegi nit ñi daanaka boo ànd ak nit sax am noonu ngeen di doon te façon politique boobu léegi la fi am léegi da ngay ànd bañ a ànd ak nit sax doon ak moom am noon pour pourtant loolu mën naa ñàkk parce que ñun ñëpp ay nit lan ay mbokk lan ñii xëy na même bu fekkee ne kii ñoo bokku maam Adama ak Awa kon ñun ay mbokku lan ñun réew mi lenn rek lañ fi soxla muy dal ak jàmm ñu mën a liggéey mën a yor suñu famille nekk si jàmm quoi mais wax dëgg yàlla soxlawul xeex. soxlawuñ dara jàmm rek lan soxla ci réew mi réew mi nag pour jàmm jooju ci loxo kenn la nekk ki nga xam dañ ne ko joxel dat dat bi lan lay laaj dat boobu noonu bis bu ko joxe woon rek jàmm ji ne béy waaye nag ñu ne la joxeel dat ah premièrement nga naan damay waxtaan ak damay kii waxtaan avant avant loolu la woon mais boo bàyyee ba mu passé nga ne damay waxtaan wax dëgg yàlla population bi dañ ci am lu leen met trop waaw alors est-ce que foogul ne euh, bu nee amnistie damay amnistie ñëpp libre ma génnee Ousmane Sonko rek ñëpp dañ naan waaw d'accord ci mbir mi est-ce que du looloo tax tamit mu foog ne euh, bu nee amnistie rek ñëpp dañuy d'accord. waa xam nga euh, kii di Ousmane sonk moom dafa bañ amnistie moom mi nga xam ne dañoo bëgg a amnistie pour moom mu bénéficier woo ci moom dafa bañ amnistie ay nitam bañ ko kon kooku mënoon ne dama koy amnistie pour moom moom mu dugg ci biir amnistie bi te gis nga bi loi bi ñoom ñi ngi wax ne. affaire Mame Mbaye Niang bokkut ci amnistie bi kon ça veut dire que ñoom li ñu bëgg xëy na pour protéger seen bopp la mais du doonatul pour protéger Ousmane Sonko parce que même bu loi bi jàllee atte Mame Mbaye Niang mi ngi fi ba léegi kon Sonko mën naa ne du ci bénéficié wu ndax Sonko loolu rek moo ko téye bu Mame Mbaye Niang bu Adji Sarr ko léegi nag boo dundee bu Adji Sarr bàyyi bu Mame ñaa li nga bëggoon yow dèjà am nga ko ba pare mais amnistie daal ñun d'accorduñ ci daal wax dëgg yàlla d'accorduñ ci waaw merci beaucoup Ndiogou. waaw merci beaucoup maa ngi leen di gërëm di leen sant jaajëf waaw maanaam euh, réew mi dafa toll foo xam ne jubbantiwaat lépp ba jàmm dellu si dafa jar lu ne te yaakaar naa ne loi boobu bu ma juumul bi mooy fukkeel bi ndax defoon nañ ko fi juróom-ñeenti yoon kon nag yaakaar naa fexe ba réew mi nekkaat ci jàmm moom mi nga xam ne moo jiite buy dem mu bàyyi réew mi ci jàmm nga xam noonu lañ ko ko joxe woon ci jàmm ak salaam loolu jar na lu nekk loolu moom luy indi jàmm ci réew mi wàññiwul dara ndax dal gi kat mooy tax ñun ñi sunub liggéey dox mooy tax liggéey ñeneen nag ñeneen dox te dal gi mi ngi nekk ci biir jàmm te jàmm nag moom lu ko waay mën di jëndee jar na ko ndax moo gën fii gën fan jëm ndax nag ñooñee seen njaboot dañ leen yaakaar ak seen i seen liggéey ak leneen ak leneen kon ñu bàyyi leen tamit ñu delluwaat ci seen biir kër te la leen tënkoon ñu bañ koo defati loola tamit amul benn jafe-jafe bu ñeen leen mën a jéggal nañ leen jéggal te yàlla rek tax ñeneen ñi nga xam ne si nag ñoom dañ leen a tooñoon li ak li ak ak yelleef wax bu ñu leen mënee dàmpit ñu dàmp leen ba seen xel dootul delluwaat te loolee seen xol sedd loolu daal moom xam naa bokk nañ ci samay xalaat. li nga xam ne nag euh, askan wi itam ñu ngi koy wax ñu ngi naan que ni loi d'amnistie bi du ñëpp la arrangé arrangé na ñenn ñi waaye itam arrangé ñeen ñenn ñi loolu itam lan moo ci sa xalaat. waaw maanaam euh, olof daa wax ne daanu dajul suuf maanaam def loo xam dafa arrangé ñëpp moom suñu borom rek lañ koy jiiñ waaye keneen ku mën di ko doon genn wàll gi dañuy kontaan ñeneen ñi des muñ ñeneen ñooñu nag lay tax ñuy muñ yaa koy yëkkati teg ko seen loxo bu ñu ko gisee jàpp jee ndax ñu muñ ndax muñ moom wolof daa wax muñ rek waaye muñ mooy muñ nga am na loo xam ne boo ko tegee ci loxoom nit dana muñ ndax bu muñee rek muñ daal am kon nag ñooñee la leen di muñ loo dañ koy yëkkati ñu teg ko ci seen loxo waaye nag jàmm ji moom nañ ko jiital rek ndax jàmm ji moo tax ñu toog fii jun nga fekk ñu fi ñu mën di nangam ak nangam ndax amoon nañ jeneen activité ñu daan def dëkk bi gënoon a dox waaye dëkk bi fi mu doon dafa taxaw te li ko waral mooy ñàkk jàmm kon nag nañ jëloo si waat jàmm ku ne nekkaat ci activité loolu daal la ñuy ñaanal réew mi. ñàkk am datu élection itam est-ce que bokkul ci liy ñàkk yee jàmm. waaw xam nga Sénégal yàlla daa dogal ne ba mu sosoog léegi benn date rek la am muy le 25 février te date boobu lañ koo luppe du ma ni nag des na la le cinq février bu yàgg euh, bii di ñëw waaye danañ ko jege lool waaw ndax date boobu boo mën di jàpp bu dul le 25 février di nga ko bokk ak nit wala mu nekk datum nit maa la wax loolu. kon euh, Fallou Sow ñu ngi lay jaajëfal. waaw baax na sant naa yal na yàlla dolli ci réew mi jàmm defal ko ñëpp góor ñi jigéen ñi te defal leen ko yéen it waaw leen góor. ñu ngi leen di nuyu di nuyu sib waaw loi boobu moom kenn d'accord si ndaxte lu ñu fi def depuis mars ba léegi ñii ñii ñàkk seen i loxo ñii ñu rey leen ñii ñu tëj leen xam nga ñii ñu tuumaal leen ah nga xëy xëy rek ne da ngay woote say loi administre xawma lan ak lan non non loolu kenn d'accord moom daal liñ koy ñaan Macky jeexal na nu jàpp datu élection loolu kese lañ koy wax amul leneen luñ koy wax ay administré yooyu yëpp amul sens administré kenn du ko fi nangu xanaa ñoom ñoom seen i député ak ñoom waa Bennoo Bokk Tas Yaakaar ñoom ñu dem ensemble def seen i loi wante ñun sénégalais yi nanguwul tey nanguwul ëllëg te ñoom député yi nañu xam ne ñun ñoo leen fa teg ñoo leen di fay ñoo leen di jox oto ñuy dawal di leen jox carburant du leen def lépp kon nag tey jii waruñoo ñëw di def loo xam ne nag su ku si sa doom deewoon doon nangu ñu administré kenn di ko baal foofu la ñuy xoolee réew mii ñun ñoo ko bokk réew mi réew mag ñu baax ñi la dañoo liggéey liggéey bu am solo Macky Sall ñëw na kenn duna liggéeyut ci réew mi ñëpp gis nañ li mu liggéey wante bu mu yàq li mu fi def na jàpp datu élection moom jeexal na depuis n'est-ce pas le avril lay jeexal na dem. maa ngi dégg nag waa ji xaw ma seen ministre de l'intérieur boobu xaw ma nan mu ne le 2 avril Amadou Mame jóob mooy dem ci palais bi mooy nekk cinquième président te loolu amul loolu amul ndax Amadou kooku noonu mi Amadou Mame Diop décret moo ko fal te Macky Sall mi ko fal le 2 avril lay jeexal kon na xam ne moom le 2 avril ñoom nekkatuñ ci dara Sénégal conseil constitutionnel nañu jël seeni matuwaay ñu jàpp datu élection Macky bu nangul jàpp datu élection ñoom ñu jàpp seen datu élection ñu dem ku yàlla jox réew mi ñu xam ne yow yaa gagné loolu la ñuy doon wax waaw ak ah, waaw loolu rek lañ doon wax. alors est-ce que tey euh, comme li nga wax datu élection boobu gënul yàkkamti li nga xam ne moom mooy amnistie. non amnistie bi moom déggal ma moom Macky moo ko bëgg ak ay gaam ndax lan li ñu def ci réew mi depuis xeetu ñaawteef bu ñu def man damay tëdd sax ba guddi di ko xalaat. même buñ ko wootee ban aganal ko ban ban ban validé ko yàlla sunu borom mi nga xam ne moom moom ñëpp du ko baal il faut mu taxaw ak sunu borom rendre compte li mu def bakkan yi mu rey ñaata nit Adji Sarr ñëw na fi rey ay ñaata nit man ama xarit bi moo doon àndal bi toogoon fii dañ ko dóor bal fii am na sama booy bi newoon fii dañ ko rey ci manifester billaahi dañ ko rey léegi ñu ñëwaat ma mbay ñaa ñëwaat ñu reyaat fi ay nit ah yàq ay parkinu jàmbur kooku noonu parkinam bi ñu yàq est ce que Macky moo ko fay wala Sonko moo ko jëndal moom moo ko liggéey ba jënd ko ñi ñu daaj seeni i ah ñii ñu def leen lu ne tey nga bëgg a xëy xëy ne damay woote ab loi administration xaw ma lan pour ñu baal nit ñëpp noonu non loolu du man man su ma même man su su ma defoon ñaawteef bul ma baal ndax ndax loolu du yoon réew mi ku fi def ñaawteef dañ la war a teg ci yoon dañ la war a teg ci yoon man man man ku ma àndal sax bu deful yoon dañ ko teg ci yoon. loolu mooy yoon wante du ñu woote seen i loi ne dañuy baal noonu non non du yomb de même buñ ko wootee fii beneen président bu fi ñëw bu ko dindiwut moo xam ne war na Sénégalais yi barki Seydina ma loolu laay de ku ñu fi mën di teg su ñëwee même Macky Sall moom ndax lu mu bëgg a def dina ko def ndax moom moom ensemble moom moom député yi moom moom lépp moom moom lu mu lu mu wax ne lii def na ko ba pare si si signé na ko ba pare loolu nag Sénégalais yi xam na xam nañ ko xamul xamuñu ko wante lépp lu mu ne day koy wootee xam nga ne loolu pere na signé na ko ba pare dañuy dem rek ñu rempli def seen i bagage wante nag beneen président bu fi ñëw loolu dina dañ incha allah jaajëf waay man mii de man mii di wax ak yéen daal ànduma si lu tax ànduma si nag loolu laa leen bëgg a leeral mënuma d'accord ñu administré ay sénégalais yoo xam ay nit ñoo xam ne dañoo def yàq si alo alal alalu réew mi ëppale taxaw ñu leen di jégal si ay fare yi ñàkk fu la yi mënuñoo comprendre ay ñaata manifestation yoo xam ñaata station la fi taal yoo xam ay Sénégal ay Sénégal ñoo fi doon liggéey taal ay Auchan yoo xam ne ay Sénégal ñoo fi doon liggéey bis bi jóge woon yaraax ñu taal ko ndax ay Sénégal ñoo ci nekk ñaata dina ci dee léegi leerul ñu ñoo leerul ñu askan wi nit ñi dees yooyu ba pare ñu ñu bëgg a amnistie affaire yi ñàkk fu la ñu mënuñoo comprendre loolu même bu ñu bëggee jege ay politiciens ay simple politiciens yoo xam amul njëriñ askan wi pour pour euh, affaire de politique bëgg ñu euh, sacrifier à Sénégalais yi ñun mënuñu koo comprendre ndax am na loo xam mënuñu ko d'accord bu ñu bëggee ah, génne ay Sonko nan leen génne nan leen génne waaye ñun ñun Sénégal yi mënuñoo d'accord affaire yi ñàkk fu la ñu woon depuis manifestation yi depuis a léegi askan wi dañu fay yàqul ay millions yu bëree bëri bëri yoo kenn xamul lu ko yàq te loolu dafa waroon leer ñoom affaire seen affaire de politique ñoom seen neen seen politique la waaye ñun sénégalais yi ñun ñoo bëgg affaire affaire yi politique politiciens yi respecté ñoom xam ne ñun ay sénégalais lan si dëkk ah, juddoo si réew mi seen affaire de politique ñaata askan ñoo fi yàqul ndax affaire de politique politique mooy solal Sénégal ñu doonoo sonn ci politique affaire de Macky Sall ak Sonko ñu ñëpp a yem tous ñoo yem même jikko ñoom seen intérêt personnel moo tax ñuy wax Sonko waa kër Sonko ba léegi déggoo leen amnistie bi ñu kaas ko pour lan pour seen arrangement politicien bu doon leneen loo xam ne bi ñuy amnistie Khalifa Sall yi waa kër Sonko ñoo njëkk a taxaw ñaawlu ko nan génn ñaawlu li bu xool intérêt Sonko wala intérêt diw wala intérêt diw nan xool intérêt sénégalais yi ñu respecté ñu Sénégalais yi ndax réew mi bu baaxee ñu Sénégal la baaxal su yàqoo Sénégal la yàqoo ay jeunes yoo xam dee nañ fi man bu dee dëgg yàlla bëgg farul ma Sonko man bu ma sañoon Macky Sall mooy continuer si réew mi waaye am na loxo bu dee Macky Sall ko naa def tam farul ma du ma si ànd ndax man xooluma ay Macky xool ñu ñu respecté Sénégalais yi ndax si réew mi ñëpp ñëpp ay Sénégalais la nan xoolu rafet ñu koy def ndax bu amnistie bi kaasuñu ko képp ku faral Sonko kaasu amnistie bi mosoo dégg beneen débat télévision boo xam ne dégg nga membre Pastef kaas amnistie bi. ah pourtant ankay pourtant euh, waa waa waa Pastef yi rek ñoom ñooy kaas li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy moom mooy amnistie nee nañu bëgguñu ñu amnistier nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu teg yoon ci képp koo xam ne tooñ nga euh, kon kay loolu yaakaar naa ni ñàkk a d'accord munu koo weesu. léegi yéen a ngi sigur yéen a yow journaliste depuis yi fi xew yëpp yaa ngi gis Sonko di def tweet wala mu def. si compte bu dam di ay xibaar di jàllale di ba tuddee affaire amnistie bi ba léegi mosoo gis mosoo gis page Facebook mu jàllale si ñaawlu ko Sonko non dañuy waxtaan rek Sonko mu page Facebook am boobu di boobule moo ngi jàllale ay xibaar même bu ma si doon jàllale ay xibaar jàll waaye di ban waxee moo ngi jokkoo Macky Sall ay affaire amnistie ba léegi mosoo gis mu jàllale si ñaaw wax ci na wax ñëpp sénégalais yëpp xam lan moo xew ñun comprendre tuñu xamutuñ ban Sénégal la nekk tey boo amee intérêt dara nga nga d'accord ko bu suba bu ci amoon intérêt nga kaas ko ñun mënuñoo comprendre loolu ndax nañ xool lu lu lu amoon njëriñ réew mi affaire de policiers yi ñàkk fule yi ñun moo ñu tardeel te moo ñu mës a tardeel moo kese moo ñu tardeel Sénégal ndax policiers yi chaque jour ñoom seen arrangement la ñu xool li leen ñu xoolul ñu arrangé askan wi te askan wi moo ëpp njariñ benn simple politicien lu amoon njëriñ askan wi la la xool xoolul ñu ay diw ma Samba wala ma Demba ensemble nag la fa la fa nar a xam man su ma nekkoon député wala loi bi su ñëwee même bu ma ànd ak Macky ko voté ndax Macky Sall moom ma askan wi ñoo fi teg xool li jëriñ askan wi ñu koy def. waaw loi d'amnistie bi damaa man man li ma ci wax mooy sama kàddu mooy ànduma ci parce que benn dañu jël ay doomi jàmbur rey leen ci lu teguwul fenn léegi ñun léegi loolu loi bu jàll léegi xale yi dee moom fu ñu féete benn xaalisu réew maa ngi nii pétrole gaz ñoo leen fa xaalis bi ñu luubal. pourquoi pas ñu bëgg a amee nga xam ne li waa bi dañ ci dugal ñëpp ñun ñun ñoo ciy dee parce que benn ñu ngi sàcc suñuy milliards li ñoon ci réew mi yëpp sàcc nañ ko loi bi ñëw tey ñu bëgg koo defar masal bu fekkoon arrangé ko du ko def da ko arrangé moo tax da koy forcé que ñun xam nañu yow bu fekkoon tey Ousmane Sonko bokk kon tey du jël ne leen voté leen non ñu da ngay wax lu yéen maanaa parce que yow mënoo am vingt cinq député ñun ñu ne ñoom ñëpp ñooy voté leen non yow ñu bëgg a taxaw ne ànd nga ci li wàllu amnistie bi Elma Ndiaye mooy mooy mooy kaddu Sonko bu waxee rek wax te mu ne àndu ci ñëpp a ko xam Sonko lu muy bind mu ngi kaso ñaara moo ne man Elma Ndiaye waxal lii Elma Ndiaye ci ci benn patriote àndu ci parce que dañ cee rey suñuy rakk rey suñuy mag damm ci ñiy damm ñi am ci problème bu bët lépp Macky Sall ñoo bëgg a xëy neenal ko pourquoi pas fu mu tege parce que ñu xam nañ lépp gars yi ci ginnaawam dong lay protéger loi bi loolu tax a jóg gars yi ci ginnaaw lay protéger mooy moo ci am ku wax ku wax xam ne yi lay mais na ànduñu ci tey ànduñu ci suba bu ko defee ànduñu ci te beneen président bu toog bu ko yà ma bu ko dindiwut war na Sénégalais loolu mooy la am maa leen sant dina gërëm nag taxam xam ne baax la di ñaan Seydina Ousmane Sonko jël mi teg ko ci yoon. ah man de ni ma gisee mooy que ne carrément nit moom nguur moom boo nekkee ci réew yaakaar naa ne waxtaan mën da ñàkk waaw yoon la nag ñu toog waxtaanee ko ndax waxtaan moom bu dul bu ay président yooyu yëpp nit sax lu ñu bëgg a maa faaw ñu toog waxtaanee ko mën da ñàkk ci réew. waaw nañ nangu loolu ñu toog waxtaane ko am réew waxtaan moo koy doxal mais nit doo jekk-jekk nga jël sa décision bopp na da nga koy doxal non su boobaa kon teg nit ñi tegatul la ñi la fi teg boo demee ba jaaxle am nga droit waat leen ngeen toog waxtaane ko waaw nit koy dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dellu fa nga jóge woon soo eggee nga toog ñu waxtaan ak ñoom ñu teg la si yoon man ànd naa ci si waxtaan bi ànd naa ci waaw leneen li nga xam ne moom man moo nekk sama wàll si mbirum réew mi moom mooy que ne xam nga am na ñoo xam ne carrément dañoo mën a jàmbat rek di jàmbat mais réew mi métti na dëgg neexul métti na trop si ñun suñ côté ndax ku si nekk si li nga nekk si ngay mën a wax mais loo xamul xamoo ko loo dundul mënoo xam méttiwaay ba mais ñun moom li ñu dund nii dafa métti métti na trop waaw donte nag ay gone lañ si moom si nguuram lañ fekke moom mais liñ si jot a fekk nii métti na xamul ndax day jàllam déet nag mais métti na trop suñu sañoon nag mu am changement yu bari di bañ fi nekkee léegi diggante daaw ak ren léegi fii moom liggéey bu normal sax ñun mënuñu ko def waaw chaque jour ak lay xew chaque jour ak lay am te lépp mën na war na mën a jeex ci réew mi jàpp naa ne war si mën a jeex ndax réew dama yaakaar ne chaque chaque année dafa war di développer di gën a yokk mais du a jëm am na yu bëree bëri day day day daane réew mais du ko yëkkati waaw xeex nag ak ay histoire yi mënut a ñàkk cim réew am réew moom faaw balaa baax moom loolu dina si am mënu see ñàkk ndax réew moo gis mu gis mu riis rek ñàkkul ne mas na am geer wala dara mas na fa am ginnaaw bu mu soog a baax mais nag ñu di ko waxtaane daal waaw ñu di ko xel di waxtaane moo gën ndax mënut a jël décision boppam tey ki nga xam ne nekkagul président it mënta dikk jël décision boppam ndax ku nit ñi falagul mën a goo def dara faaw nga nangoo toog di waxtaan ba yàlla def ñu fal la bu demee ba nga ne li ñu bëgg am na muy ay élection yooyu noonu moom biir na Sénégal yëpp ne moom bu demee élection moom dana gagné dana dem dana moom réew moom loolu moom Sénégal yëpp nangu nañ ko mais nag nangoo toog ba egg sa sa bis boobu noonu ñu wate ko mais mënoo dikki ne da ngay xeex wala nga def dara ba jot si ndax ka fa toog noonu dañ ko faa fal am na keneen ku fa ñëkkoon ba fa ba mu ñëwee daa moom it dafa rayante ba dem mais moom it day def ndànk rayante ba dem su jàllee nag nii lay demewaat rek ëllëg ndax nit du fi toog ñu ne abadan yaa fi toog su dikkee toog it daneen ba jëm jamono du neex ñi ñi mujjee ñëw ñun mën nañoo neex mais mën na am ñoo xam ne suñu doom wala suñu sët kii du leen neex suñu dikkee da nga fi bëgg a jëlee waaw moo tax nguur moom du wëy mais nag boo ko bëggee dangay tax nga da ngay jaar fi nga war a jaar di waxtaan mais du cadre que ay xeex ak histoire moo koy indi ci réew noonu waxtaanee lépp si la bokk waaw est-ce que tey loi d'amnistie bi nga xam ne euh, ñu ko bëgg a voté itam nekkul lu ñu lu ñu forcé parce que askan bi yëpp d'accord luñ bu ñu ko bëggee yóbbu assemblée est-ce que nekkul lu ñuy forcé mais lii moom du cadre forcé mais ki nga xam ne da nga koo jël mu nekk sa président nekk ci réew xam nga président yàllaa ko fal li ma la ko a waxee comme ab tey ab sëriñ la si xeet ndax dafa yilif ñu bari ndax tey am na lu bari lu la dogal fi day metti bu ñëwoon tey na place yëpp tëj dara nit ñi duñ ko nangu nag mais faaw am ñoo xam ne ñi nga xam ne borom bopp lañ dinañ nangu toog waxtaan ak moom ba xam lu ne kii a yàq ñu xam ne kii yàq ko tax a jóg suñu ne bu xamee ne dafa bëgg a a si réew faaw ñu nangoo def loolu te ñu jàppale ñu si nag ñun ñi ne fii di liggéey fii nii ndax ku si nekk xam nga tey li ma laaj si loi yi ma laaj si laa waxee ak yow mais boo dikkoon laaj ma si beneen domaine dama la fay waxee mais ñun moom si ñun ñi métti na suñ côté suñ surtout suñ liggéey yéen i yéen dikk ngeen fekk ñu fi métti na si ñun trop te ñun ay jeunes lañ tey toll nañ fa am ay jabar am ay doom fondement famille kon nag am na noo xam ne tey a yor weccet kon ko dagge bee tukki fi nekk ni war nañ fiy tedd voilà man loolaa gis ñu jàpp si a baax kontaan si yéen bu wér a nag ok merci beaucoup ok loi boobu nag man xaw na maa jaaxal trop trop parce que dafa am ay mbir yu fi xew ci ginnaaw yoo xamante ni xam nga ci askan wi am ñoo xamante ni dañoo fat seen bakkan am ñoo xamante ni dañoo yàq seen alal xam nga am ñoo xamante ni dañ cay yàq lu bëri bëri comme bu ñu bëggee jël jël jékki-jékki rek benn instant ne dañoo war a effacer lépp li nga xamante ni xewoon na fi képp ku ñu doon topp ñu bàyyi la day mel ne day am lu ñu nuru te en plus état bi bu bëggee ñëw forcer nit ñi ci loi d'amnistie day mel ne moom daa am lu mu bëgg a raxas si ginnaawam am lu fi def loo xamante ni bëgg na bu wàccee kenn du ko ci topp kenn du ci topp ay jege te te te tamit bu ñu waxante dëgg boo bëggee forcer nit ci benn affaire te ki nga bëgg a forcer pour baal ko nee na la ma baal est-ce nga bàyyi man loolu laa foog quoi moo tax loi bi vraiment dafa luus war nañ ko mën a seetaat bañ ko ah, bañ ko jàllale assemblée nationale. du woon yoon sax ñu dem di ko yóbbu assemblée nationale di ko woote parce que bu ñu demee assemblée nationale di ko woote sam am naa rafet njot na day jàll foofu parce que dafa am ay député yoo xamante ni ñu ci bëri APR la ñu liggéeyal dañ ne lañ fi nekkal mais nekkuluñ fi askan wi seen bopp lañ fi nekkal ak Macky Sall Macky Sall bu bëggee benn loi imaginez depuis ba mu toogee ci gouvernement ba léegi loi bu mu bëgg ñu woote ko assemblée nationale day jàll. comme bu demee bu ñu ko yóbbu assemblée nationale bu ñu ko wootee bu jàllee bu bu mbett kenn te warul jàll parce que lu fi xew ci ginnaaw dañ ko waral leeral mu leer képp koo xamante ni taxa nga ci ñu jàpp la teg la ci yoon man sama gis-gis loolu la ci. est-ce que gisoo ne tamit euh, li nga xam ne moom mooy datu élection yi moom moo gën a jàmp ay voté ay loi d'amnistie. waaw defet la boo xamante ni ñun ñëpp képp kuy Sénégal da nga ko war na naqarlu parce que ñun dañoo amoon fierté woote jot ñu dem sànni suñuy xob tabbu kon nu ko yeneen réew yëpp di defee waa mais imaginel tey depuis ñu am indépendance ba léegi c'est la première fois ñuy rapporter élection présidentielle loolu dafa ñaaw waroon nañu mën a bàyyi woote jot ñu dem fal ku ñu neex jox ko suñuy carte mu jiitañu te nag benn affaire na naa la ko bëgg a xamal Macky mi ngi mi ngi décevoir askan wi ci loo xamante ni xamu ko parce que askan wi dañoo jël Ousmane sunko jox ko bopp te def na tout ba éliminer ko ci candidat yi bokkul te gars yi amoon nañ yéene fal ko jox ko réew mi boo gisee ni réew mi doxe amoon nañ yéene jox Ousmane sunko réew mi léegi nag bu ko éliminer ne du bokk déjà déjà kon ëllëg keneen kuñ jox réew mi mu teg ñu ci naka su noonu responsabilité bi moom mooy Macky Sall. mbokk yi xaritu internet yu 313 digital lii la ñu leen indiloon ci li concerné loi d'amnistie bi ñu war a voté foofu ca assemblée nationale suba donc euh, li nga xam ne moom mooy ci seen xalaat wax nañ ko ñu nangu wala ñu euh, bañ euh, gis nga li nga xamee ni moom mooy ci seen réaction ñu leen di fàttali ngeen di abonné te bës ci cloche notification bi c'était sur 313 digital jaa ngeen jëf.